xasida gu ñuy wax alhamdulilahi les ujaas yi di xasida gu am solo yëpp am na solo waaw xasida gi sëñ Tuubaa daf ci ñaanal ki nga xam ne daa nekk ci service am maanaam di ko liggéeyal def yitte ngir doon murit saadix di liggéeyal sëñ Tuubaa ak nu mu ko mën a liggéeyal nag moo xam ci dooleem la moo xam ci durus xasida yi moo xam ci alalam kàttanam ak lépp rek ñaan yi sëñ Tuubaa moom la koy ñaanal kon ñu bokk déglu du ma tàmbali lépp rek waaye diggante bi nga xam ne ci lay bëgg a sooboo ci ba ñaanalaat koo xam ne sax du ab murit far waaye ab jullit la rek ci bayit bi déggal déggal wax ju kawe ji mu wax mu ne ginnaaw ba mu waxee salli ala ayril wara muhammadi wa ali ma asihaabil xubbati muy julli ci yonente bi di julli ci waa këram ak saxaabaam fii lay tàmbali ñaan yi nag mu ne waxfir zunubi wa zunubal muslimin wal muslimaati ya afuur ya muhin mu ne yow sama borom pardon nu nopp à moi et à l'ensemble des musulmans hommes et femmes au toi qui pardonne et qui accorde l'assistance distance. na ko yow suñu borom defal ñu jéggal moom defal ma ko defal ko mboolem julli di góor ak jigéen yow mi nga xam ne yaay jéggalaa kon bi di dimbalaa kon bi mooy tur yàlla yu ñu wax muhin déglu ñaan gi fi wa habluhum consent à exaucer les voeux de tout ce qui se consacre de tout ce qui se consacre sans relâche à mon service et réalise leur aspiration mu ne da nga déggoo da nga saafara bépp jafe-jafe bépp bëgg-bëgg boo xam ne képp ku nekk ci yoonu di ma liggéeyal te bàyyiwul rek la bëgg nga defal ko ko na koy sako muné ne warzuhumul iman wal islam wal fatxa wal ihsan wat islaama favorise-les de la foi de la pratique religieuse et de la perfection spirituelle au même titre que la réussite et la soumission à Dieu ndeysaan mu ne da leen ñoŋalal bu baax ñu am ngëm gu wér nga def leen ñu doon ay ay ay ay muslim maanaam islam yi ñu koy eh, pratiquer nu nga ko bëggee yow suñu borom nga defal leen ixsaan gu wér mooy perfection spirituelle nga may leen fatx waaw leen it ak tawasul maanaam ak eh, dellu ci yàlla gu mooy soumission rek bañ a yàlla gu wér a wér a wér waaw mu ne wajaazihim xanee bil xufraani wa bil karaamaati wa bil ridwaani da nga leen may ngir sama jëmm ji nii sa sa njéggal gu sax da leen ko defal waaw maanaam mooy rétribuer de ma part en les gratifiant de ton pardon te it nga defal leen bu baax a baax ay karaama maanaam ay honneur ay yëkkati ko ay daraj kawe et ton agrément ak sa ngërëm waajisub xumul ilal xuda wal xayri waa sif xumu xani rada wa dayri mu ne dirige les vers la droiture et les bienfaits détourne les de la perdition et des malheurs ndeysaan mu ne danga leen teg ci yoonu siraatal mustaqim tey del wàcce ci ñoom foo tollu say may say xewal ay bienfait waaw tey nga musal leen ci ak réer perdition ak ay bépp nax ndax maanaam ràgg-ràgg gi les malheurs waaw waxfir loxoom ko la laxan wa zan bi wa xëpp loxoom maxan salaa xal-xal bi pardonne leur toutes les toutes leurs erreurs et leurs péchés et tous ensemble d'un cœur pur mu ne jéggal leen seen bépp bàkkaar ak seen ay njuumte te nga defal leen ñoom ñëpp xol bu sell bu lab xal bu sali waaw kun mahinuhum xala umuri ad-dini wa dunya madad duhuri accorde-leur en tout temps ton assistance dans toutes leurs affaires spirituelles et terrestres mu ne fuñ mën a toll rek lu bépp zaman bépp jamono rek dee leen defal seen ndimbal bu baax yow yaa rabbi tey del wàcce del wàcce ci ñoom del del def seen mbir seen mbiri àdduna ak seen mbiru jaamu yàlla lépp dina tax maanaam di kawe di baax

mu ne kon xale yi fil xulumi yu yusilu xanxum dana san oxupa waaw mu ne te nga defal leen bu baax a baax a baax ay dënn yu tijjeeku maanaam ñu am xam-xam boo xamante ni nii maanaam ouvre leur grandement les porte du savoir utile te ci les préserve des ternisseurs des ternisseurs et des euh, turpitudes ginaaw ya. ginnaaw ba nga leen tijjalee seen i dënnu bañ am xam-xam ndax nit ci bu demee ba yalla dénk ko lor yoy seytane man nako jox jaxal motax mo ne ta nga musse leen bu baax a baax ci lëndëm lëndëmi xol ak ay duggu ci ay nax-nax wa hab loxum sahadatan tadum ya barru Ya mujibu ya karim accorde-leur un bonheur plein ô toi le bon ô toi le généreux qui exauce les prières kon nga defal leen mbekté mo xamanteni day sax ba faaw rek yow mi nga xamanteni ya barru yow mi bax mi yow mi nga xamne yaay doxal mbir ya mujibu yow mi nangu ñaan ya karim yow mi nga xamanteni yaay le général kon defena na yam fofu rek kon suñu liggéey ci sëñ Tuubaa yalla nañu ko yàlla nangu seen mbokk sëriñ da moko don barkelo ci alhamdulillahi lazi jazi lu ci jub yalla la lu ci deng yalla bu ñu ko yalla top di ci saku ngeureumal cheikhul khadim subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun ala mursalin rabbil alamin فوزي بما الدنيا